KMTV une chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wóor te leer. asalaamaaleykum mbokk yi internet yu KMTV ñu ngi leen di nuyu beneen yoon di leen dalalaat di leen wax ngeen muy abonné ci chaîne bi bu dé gën nga ci chaîne bi nak ñu lay wax nga abonné nga bëss cloche de notification pour di bokku ci ñi nga xam ne ñoom ñooy njëkk jot vidéo yi ngeen di commenter aussi di ñu wax seen xalaat ci ni ngeen gisee match yi. en fait ba tay dañuy des ak yeen ci li nga xamné mom moy mooy poule A bi doxoon ci diggante ASC Lelo ak ASC Renaissance mu nekkoon match bi nga xamné mooy match bi nga xam ne moom moo nekkoon quatrième journée bi mu nekk match boo xam ne nag match bu difficile la woon ci ñaari équipe yëpp parce que ku ci gagné woon rek dangay ngay jaar jël sa ticket de qualification mu nekk match boo xam ne mu ngi mujjee deux buts à un ki nga xam ne moom mooy ASC Lelo moo mujjee am ndam ci kaw ASC Renaissance Renaissance nag moom moo njëkk am benn Sur moo toj taax yi fu mu nekk nii Adjuma Ndiaye allo. marché bi di waaj e a mi temps di am penalty di dugal ko. Neymar bul bi arbitre sifflé na Laye Neymar ak gardien bi oh là là bit Laye Neymar dugal na bal bi dugal na égalisation pour Aïcha ci noonu la ñu demee ci deuxième période bi ci lekk ki nga xam ne moom mooy Aïcha Lélé amat benn bi contre Sonka lañu dem Neymar day dem Neymar day dem ololo oh kafuyo nekk deux buts à un ki nga xam ne moom mooy ASC Leno moo mujjee am ndam moo waroon nekk première heure bi e boo xam ne dañ ko mujjee rapporté ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ASC Leno dañoo amoon déchet moo tax match bi ñu daal di koy rapporté beneen yoon ki nga xam ne nañ jàppagum ne ci poule bi nga xam ne moom mooy poule A ki nga xam ne moom mooy ASC Leno moom rek moo ciy qualifié bi di la wax ne bu dee mos dugal benn vidéo ci chaîne bi mu doon vidéo bu la intéressé wala lu la neex ñu ngi lay ñaan nak vidéo bi boo ci rek nga commenter nga like nga partager comme même bu dee sa ñaari ami rek pour ñuy mënd ci ci information yi nga xamné mom la la TV di wàcce KMTV seen chaîne YouTube bu leni indil ay xibaar yu wërté lèr ci politique économie santé éducation religion sport ak yeneen événement képp ki nga xam ne yaa ngi bàyyeekoo Kër Mousse moo xam nga nekk ci biir wala ci biti di nga mën a seetaan seeni événement wala match navétane yu gën a neex ci biir KMTV KMTV njëriñu waa Kër Mousse